kon ay géwal kër gi kenn mënu fee noppalu ay waay dimbali leen nag ngeen wàññi seen coow li wàññi leen seen coow li Are you a construction worker? Put on your hat. Construction worker. Let me see. Put on that hat. Put on that hat. <laughs> Eh, bi. And look at this. yéen. تجل فريغو بي او تجل فريغو بي اي واي كوران بي دا فا فري تجل فريغو بي تي يلا اني كينيدي كين